ñuy dalal tey euh, kii jiite ANRAC muy agence nationale pour la relance des activités socio-économiques en Casamance di euh, Ansou Sané ñu lay nuyu di la dalal euh, sëñ bi Sané. maa gërëm di la sant madame Diatta. Mhm. di gërëm surtout ci invitation bi di nuyu seen auditeurs yi. tey ñu waxtaanee ci li nga xam ne jamono ji xibaar yi moom la ñuy xamal muy opération de sécurisation bu l'armée ba nan la ko askan wi di dundee jamono ji foofu. waaw opération la yoo xam ne ñu ngi koy amal depuis presque le vingt six wala le vingt cinq janvier bi weesu mhm. te liñ ci jublu daanaka ñaar la benn bi mooy fexe ba indi kaaraange ci zone bi nga xam ne moom moo jugee diggante ñaa gis dëkk yi ko wër mhm. ba zone Balantakunda euh, ñaareel bi mooy fexe ba créer conditions yi pour que population yi nga xam ne daw laxuloon ñu mën a delluwaat seen gox goxaan yi Euh, li tax euh, solo opération yi mooy que ñun ñëpp xam nañ ne ci zone yooyu léeg-léeg dina am ay yenn xeetu délinquance yoo xam ne dinañ ko nemmeeku surtout ci côté euh, frontière bi nga xam ne souvent yenn bandi wala yenn bande armée ñoo koy ñoo ko fay amal di def ay ñaawteef population yi bu ci mujj mooy ñaari jeunes yi nga xam ne euh, rey nañ leen te daanaka seen néew yi presque ay euh, weer après lañ ko lañ ko mujjee gis mm-hmm. di loo xam ne donc vraiment lu lu lu métti la Euh, bu weesoo loolu ñun ñëpp nañu léeg-léeg ci information yi ay xabaar yu ñuy jot nañu gis ne population yi nga xam ne léeg-léeg nañu dem ci àll bi pour liggéey si seen tool yi wala liggéey si seen seen àll donc léeg-léeg dinañ leen def ay yenn xeetu ñaawteef euh, rax ci dolli ne tamit euh, xam nañ ne zone yooyu tamit li nga xam ne moom mooy trafic chanvre indien dafa am doole dool bu am solo ba nga xamante ne jàpp nañ ne daanaka lu mel ni économie de guerre Euh, dina di euh, euh, di dina am nañ ko nemmeeku ci zone yooyu boo demee ci diwaanu Goudomp nga xam ne tamit xeex bi gàllankoor na ko bu baax a baax foofu it dëgg yàlla population yi nelawutuñu ndax lii di insécurité bi tax na ba léeg-léeg mi ñuy am euh, benn phénomène bu am doole boo xam ne nemmeeku nañ ko fa muy phénomène sàccum jur mi nga xam ne tey dafa lëmbee waa secteur boobu tere nelaw population yi tere nelaw euh, autorités locales yi ak administratives yi ak euh, lii di l'armée bi parce que li ñu mel dafa gën a yokku ba pare dafa jël ay dafa jéggi daayoon ndax léeg-léeg sax mu am ay bakkan yu ñuy faat donc loolu yëpp tax na ba opération yooyu tey euh, dafa am solo euh, ma ma dolli ci ne euh, tey diwaan boobu ndawatina commune Atéyane nguur gi nam na fa def benn projet bu am solo ñu tuddee projet agropole pour suqali li nga xam ne moom mooy développement Casamance à travers la valorisation des filières euh, anacarde mooy maanaam ndaamaraas euh, yi ak man mango gi nga xam ne filière bi am solo la te tey mën na jural euh, population yi ay emploi yu bëri te mun na leen jural tamit ay richesses yu bëri bëri bëri donc opération yi donc mu ngi lalu ci contexte bi nga xam ne wax nañ ko eh, te liñ ci jublu mooy euh, in fine fexe ba population yi mën a dellu si te ñibbisi boobu tey tàmbali nañ ko depuis presque deux mille douze bu mu commencé depuis deux mille deux mille cinq ci zone nu nooru Sindian yi waaye nemeeku nañ ne zone nu ñaagis bi diwaanu ñaagis bi euh, ñibbisi boobu dafa xaw na yéex ndax euh, bu yàgg population dañ doon dañ dañ ko doon dëgmal waaye bu ñu ñëwee ba ci biir Euh, léegi euh, ñu souvent mu am euh, yenn exaction yoo xam ne dinañ ko def si ñoom bu buy tax ba ñoom dañ doon dellu wala donc dañ doon am ay découragement moo tax ginnaaw bi armée décidé ne bu weesoo opération yi daan samp ay cantonnement foofu pour wéyal opération yi jàpp nañ ne conditions yi tey mat na te population yi Euh, am nañu pare préparé nañu am nañu détermination pour ñibbi parce que euh, seen euh, li ñuy dund léegi dafa xaw a métti parce que presque depuis trente ans ñu ñu ngi dund ci statut déplacé wala statut réfugié loolu ci ay anam yu ci ay conditions yi jafe-jafe du point de vie économique et social pour ñi nga xam ne ñoom mbayral la ñu xam wala tool donc xam nga ni loolu métti na bàyyi sa lépp Euh, euh, ñu héberger la donc ci dëkk boo xamante ne xamoo fa kenn amu fa benn activité amu fa benn métier loolu métti na ba tax na population lii rek lañu doon ñaan donc jàpp nañ ne tey euh, mbégte la ci ñoom pare dogoo nañu tey pour pour pour pour dellu. Mhm. te léegi nag loolu dafay laaj tamit benn accompagnement bu. bu ja bu war boo xamante ne état bi pare na pour jox leen ko donc ñun suñu wàllu bopp loolu mooy suñu taxawaay Euh, ñun ak mboolem acteurs yi nga xam ne euh, état bi euh, teg na leen foofu Casamance muy PUMA muy PUDC muy Proval muy Proval ak tamit acteur ONG yi nga xam ne ñu ngi fay def liggéey bu am solo ak société civile bi. Mm-hmm. tey wax nga ko mu mel ni armée dafa nekk di leen xaalil yoon yéen ñi acteur de développement yi porteurs de projet yi en même temps tey lan la yembal ci seen liggéey yéen waa ANRAC foofu. waaw liggéey bi yombal nañ ko ndax euh, ni ma ko waxee euh, bu fekkee population yi dañoo namm ñibbi léeg-léeg ñu jànkonteel ak jafe-jafe ñàkk kaaraange donc kon dinañu war a xam ne liggéey bi nga xam ne armée door na ko liggéey bu ama so ama am solo la ndax kaaraange boobu léegi dina mat parce que kaaraange bi mooy première condition yi nga xam ne moom la moom moo war a tegu balaa population di ñibbi. Euh, euh, euh, donc tey su fekkente ne condition boobu amal nañ ko ci terrain bi rek donc liggéey bi daanaka presque moitié mën naa ne réglé nañ ko la ci des léegi mooy indi jàppale ak accompagnement bu war te loolu ñu ngi ci liggéey depuis presque ñetti at yi lëkkaloo ci ak autorité administrative yi ak partenaire partenaires yi ba nga xamante ni képp koo xamante ne bëgg nga dem fi nga dëkk fi fi nga fi nga war a fi nga war a dëkk ñun ñu ngi fexe ba matuwaay yëpp ñu mën ko jël donc pour ñu mun ñu mun la jà jàppale te matuwaay yooyu ñëpp xam nañ ne dina dem ci ay tabax euh, ay kër parce que seen dëkkuwaay yëpp yàqu na euh, fexe ba jagle leen ndox fexe ba jagle leen euh, ay couverture fexe ba jagle leen dund yu njëkk ba ñoom ñu kii ñu commencé door seen activités yi mm-hmm. waaye fexe tamit ba gox yooyu ñu mën leen jox ay dispensaire ay l'école ubil leen ay ay ay yoon pour que ñu mën a dem di di liggéey ci tool yi wala ci ci ci faro yi donc euh, loolu bu ma jëlee exemple dëkk bi nga xam ne moom mooy bisin nga xam ne daaw rek la ñibbi mhm. daanaka matuwaay yooyu yëpp ñun liggéey nañ ci ñun ànd rek ak acteurs yi auto dessus de la supervision des autorités administratives pour que matuwaay yëpp ñu mën a yembe te vraiment bi bi si nekk na exemple ndax ku dem ci dëkk boobu di nga xam ne yenn matuwaay jël nañ ko te liggéey bi incha allah nañ ko wéyal euh, parce que Euh, hiver na euh, naa rek ci nawet bi la tàmbali yoon. Mhm. donc loolu taxoon na ba lu bëri mënuloon euh, yemb. waaye gannaaw ñu ngi ci jeexantal ci nawet bi jàpp nañ ne acteurs yëpp kenn ku ne am na loo xamante ne yaa ngi koy bëgg indi su weesoo loolu teg nañu. justement pour aussi accompagner euh, dynamique boobu. Mhm. benn programme bu rëy boo xam ne ñu ngi koy dippee programme de réinsertion et de réintégration sociale économique des déplacés muy programme boo xam ne daanaka euh, soixante neuf village la concerné ci département Ziguinchor te ñu jagleel ko justement li nga xam ne moom mooy euh, matuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a jagleel population yi wala village yi nga xam ne dañoo déplacé. Mhm. te programme boobu ñu ngi koy ñu ngi ciy ànd ak acteurs yi ak société civile ak ONG. soo demee tamit sama euh, waxoon mooy zone Goudomp tamit ñenn nemmeeku nañ ñu tolli presque euh, ñaari fukk ñett dëkk yoo xamante ne ñoom it pare nañu pour dal te dëkk bi ci gën a siiw tey donc mooy dëkk bu tudd tudd sa Saliot nga xam ne tey euh, déjà ñoom teg nañu ay jéego jéego yu jëkk mhm. ak euh, lëkkaloo ji ak autorité administrative yi ak euh, aussi mairie bi pour que ñu mën a ñu mën a dellu donc nekk na tey dynamique bu am solo boo xamante ne tey ñu ngi ñaax acteurs yëpp pour ñu ñëw jàppale ñu fekk ñu ñu ànd ci ñu mën a andi donc réponse yi nga xam ne moom moo war ba zone yooyu ñu mën ko suqali. ndax loolu ànd na tey Ansu ak lii di déminage bi parce que tamit jëlee fa ñi nga xam ñoom ñooy euh, waa MFDC euh, terewul euh, li nga xam ne mooy miin yi mu ngi ci dëkk yi ba tey. waaw déminage bi beneen wàll bu am am solo la ci pros cadre processus de paix bi donc loolu tamit dafa nekk benn politique bu politique à long terme la boo xamante ni état Sénégal depuis presque mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit ba mu gannaaw bi mu signé convention Ottawa contre le mine sur les mines et les restes explosifs de guerre état bi mm. donc amal na combat boobu ba tey euh, véritablement jàpp nañ ne am na effort yu am solo yoo xam ne def nañ ko le terrain euh, lu toll ak genn wàllu mètre carré de euh, génne nañ ko ci ay zone yoo xamante ne teggi nañ teggi nañ leen ci ay xeetu ndel yooyu liggéey bi des na parce que jàpp nañ ne tamit des na presque un million ak ñaari fukki junne ñaari fukki junne yoo xam ne tamit war nañ ko dese na euh, déminer donc muy liggéey bu am solo boo xam ne dafa laaj euh, ñaari condition donc condition bu njëkk bi mooy fexe comme justement noo ko waxee fexe ba parti yëpp ñu mën a nangu déminage pour ñu mën a déminer parce que soo bëggee déminer te euh, parti yi ko wër nanguwuñu ko du mënoo def liggéey bi liggéey mënta mënta yem ba mm-hmm. te ñuy seetlu ci ñaari pàcc ci déminage boobu muy pàcc déminage humanitaire ak déminage militaire ñun li ñu bëgg mooy ñu fexe ba li nga xam ne mooy déminage militaire bi ñu fexe kon nañ ñu nangul ñu ko pour que ñu mën créer conditions yi euh, de dépollu dépollution pour que population yi mën a dellu donc mm-hmm. beneen wàllu bi mooy justement fexe ba koppar nga xam ne moom moo ci war ñu mën ko mobiliser pour que ñu mën a faciliter euh, dynamique dynamique boobu donc politique la boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey ak euh, acteurs yi mm-hmm. te jàpp nañ ne déjà nga xam ne yooyu la population yi war a dem ñun jàpp nañ ne euh, gannaaw liggéey bi armée def jàpp nañ ne am na yenn euh, matuwaay yoo xam ne armée def na ko jël na ko te armée bi biral na biral ne incha allah dina fa euh, installer ay cantonnement loolu yëpp pour accompagner kaarange population yi ak kaarange mu am beneen pàcc muy processus de paix bi tey jii ndax opération yi ñu tàmbali ca Casamance du nax saa yi boobu le processus waaw loolu euh, gis-gis ñenn la waaye ñun jàpp nañ ne euh, euh, boo xoolee processus de paix bi en Casamance daanaka ñaari ñaar ñaari dimension la am. Mm-hmm. am na dimension politique. mooy effectivement fexe ba ñu trouver benn règlement pacifique. à travers les négociations loolu nguur gi euh, tax taxaw na ci presque depuis 2016 gis nañ ne nguur gi pare na pour négocier ak bépp fraction boo xamante ne véritablement mu ngi euh, bëgg na ko te ñu jàpp nañ ne tey effectivement Casamance foofu la toll Casamance loolu la bëgg. Mhm. donc mooy maanaam ñu fexe ba xeex bi ñu réglé ko par euh, l' approche politique président de la République loolu mooy engagement bi muy dalee nekk ci réew mi léegi donc loolu la jàpp ne loolu la def te jàpp nañ ne tant que yu nekk. tànk yoo xamante ne la xëy na bu ko continuer léegi loolu yëpp dina mën a euh, yem parce que déjà gis nañ ne ci anam yoo xam ne yooyu la ñuy négocier am na ay changement yu bëri yi ci def euh, yoo xam ne indi nañ ko beneen approche bi mooy fexe ba tamit ñu indi euh, jàmm bi par le développement économique de la Casamance loolu tamit am na solo parce que tey euh, boo gisee lu bëri donc mu mën a yokk ci conflit bi. Mhm. bokk na ci yenn euh, situation yoo xamante ni ñu ngi ko doon nemmeeku Casamance te doon na métti population yi mooy maanaam su ma jëlee exemple enclavement bi su ma jëlee exemple yi nga xam ne moom mooy potentialité Casamance yi euh, yi nga xam ne donc vraiment amuloon condition pour ñu valoriser leen donc loolu yëpp bokk li nga xam ne dafa doon exaspéré conflit bi. Mm-hmm. ba nga xamante ni président la République ñëwee bu am xam enjeu moom dafa jàpp ne bu weesoo négociation yi la ñu mën a def tamit mooy andi matuwaay pour que Casamance ñu mën a ñu mën ko désenclaver waaye tamit ñu mën a suqali donc économion te jàpp nañ ne pratiquement am na ay efforts yu bëri xam ne def nañ ko pour ci côté boobu c'est vrai que Casamance tey ni ma koy waxee bépp politique wala bépp investissement bu ñu fa def rek tuuti na. doyul parce que région bi dafa jël benn retard boo xamante ne bu am solo ak conflit bi ba nga xamante ne ñu ngi ñaax état bi ñaax gouvernement mu wéyal politique de désenclavement wéyal tamit politique de création des conditions incitatives pour que économie Casamance mën a soxaleku te jàpp nañ ne tànk boobu tamit am nañ ci yaakaar tey boo xoolee comme ni ma ko waxee ci njëlbeen li nga xam ne moom mooy agropole bi jàpp nañ ko jàpp nañ ne buñ ko sampee fii ne moom mooy ADL véritablement dina contribuer à tamit ba pour produit Casamance yi mu mën a am valeur ajoutée ndax dinañ ko dañ ko valoriser ak yeneen xeetu politique yoo xamante ne gis nañ ko ci dragage fleuve yi ci euh, li nga xamante ne moom mooy exportation euh, noix de Nacaste à partir du port de Ziguinchor loolu dafa am euh, xeetu dynamisme économique boo xam ne indi na ko stern la bi te population yi ñu ngi koy ñu ngi koy nemmeeku léegi li ci des mooy fexe ba dëkk yi nga xam ne ni ñaa ngi dellu véritablement ñu condition économique pour la pour pour les activités économiques pour les activités agricoles. Mhm. te loolu lañ fuñ ci fuñ ci war a jaar rek moo fexe ba créer ay piste piste parce que piste yi am na solo parce que. Euh, pour xeetu produit yu bëri ñu ngi yàqu ci àll bi ndax ñàkk euh, piste désenclavement mm-hmm. moo tax véritablement euh, c'est vrai que ay projet mel ni PPDC ak ñoom seen def nañ ci liggéey am solo mais defe naa politique boobu en amont politique boobu la ñu war a renforcer donc densifier ko intensifier ko pour que véritablement fépp foo xamante ne zone de production la moo xam agricole moo xam euh, maraîchère la wala moo xam alitek ñu fexe ba créer conditions yi infrastructurelles yi pour que véritablement production yi population di ko mën a exploiter wala tamit ñu mën a ñu jëmale rawale fu ñu ko war a rawale mhm. pour que pour village yi ñu mën a naat population yi mën a tamit am ci si njëriñ ci àll bi nga xam ne vraiment Casamance yàlla baax euh, baax baaxee nañ ko. kon daal jàpp nga ne développement rek moo mën a andi jàmm ci Casamance. waaw développement am na am lu am solo la tey ci euh, euh, li nga xam ne mooy wutum jàmm ji mais comme ni ma ko waxee option fondamentale bi tamit mooy fexe ba tey dal bi nga xam ne am nañ ko. nemmeeku nañu te ñu ngi ko ci kon ñu ngi ciy kontaan bu baax daal boobu ñu fexe ba mu nekk jàmm définitive parce que mm. accalmie tekkiwul ne paix am na li ñu war a def mooy fexe ba jiital euh, dimension politique bi waxtaan ak mboolem acteur yi nga xam ne tey pare nañu pour waxtaan pour indi jàmm acteurs yi nga xam ne ñu ngi état bi donc ñu nekk ci ginnaaw état bi pour ñu indi solution pour définitive à la la paix en en en cas en cas mm-hmm. loolu président la république pare pare pare na ko toujours wane na ko donc euh, gis nañ ne tamit. tey MFDC vraiment tàllal na loxo tey gouvernement bi donc loolu tamit je pense que un eh, dimension bu extrêmement importante la euh, ba xam ba nga xamante ne tey jàpp nañ ne condition yëpp tegu na pour que acteurs yi toog autour d'une table et ñu mën a trouver une solution définitive ndax Casamance mën a génn mhm. ci xeex bi nga xam ne vraiment sonal na ko ay ati at. Ansoumana ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay gërëm di sant